Kylian Mbappé mu gars yi bëggoon a séddoo ci match bi nga xam ne France doon na ko am ak Pologne ki dugal ca ab bit boo xam ne pelanti la Mbappé fegg ko moom it di ab pelanti ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ànd beeg El Hadj Malick TV am na solo yàlla jëm kanam ci information yu wér te wóor xibaar yi ñu leen di jox nag photo bi xam naa ni reetaan lu na ci suuf Gérard Piqué Kylian Mbappé. ñu gis ne daanaka na mu ko doon def te mënu ko woon tee dugal tey ji nag loolee même image bi moo amaat ci stade bi nga xam ne match boobee doon ca am Pologne ak équipe bi la de France Kylian Mbappé nag ngeen gis ko akub maskam mook Lewandowski mi nga xam ni bu àndee dogal borom bi déwén danañ bokk benn championnat waaye nag kii di football fële ca euh, Barcelone kii di football fële ca Real Madrid beneen bi ci des mooy match Angleterre bi nga xam ne daa témboo waaye teewul nag Angleterre qualifié na euh, ci li nga xam ne mooy juróomi poñ yi mu am séngam moom Angleterre Danemark am topp ci moom am ñetti poñ euh, Slovénie am topp ci moom am ñetti poñ équipe bii di Serbie moom daanaka dañu ko éliminer ah, ci bile compétition di euro lu tax ñu éliminer ko ndax ñaari poñ nag jàpp naa ni ah, est-ce que dana mën a nekk meilleur troisième meilleur troisième googee nga sax a xam ni ah, Croatie bu kii di Luka Modric moom it mi ngi koy yuutu ngir am dimbal lu mu mën a am ci gaay ba man koo génn waaye nag yaakaar naa ni Croatie moom moom ay mbiram est-ce que dina neexal lijjanti yeneen information ci kanam dana soxal nganuk Pape Matar Sarr ci vidéo bi